jërëjëf mbokk yi ñu seetaan ci jàmbaar news nuy nañ leen am kontaante ak mbégte comme ni ñu leen koy defalee saasu su ne ñu ngi fii ci TFM ki ñu fi indi nag mooy jàmbaar production ñuy waajal journée bu mag boobu di combat royal bi dox ci diggante Siteu ak yi nga xamante ne mooy Modou ndax ku ne xam na ni macha allah la TFM ku ci nekk ci wàllu làmb gis nañ liggéey bu rafet. bi nga xamante ne ñu ngi koy def ci làmb moo waral tey jàmbaar production fas yéene ñëw xaatim ak benn contrat boo xamante ne dañuy ànd ci combat royal boobu liggéey ci ak li nga xamante ne mooy laa TFM mbokk yi di leen jaajëfal di leen wax ni saa su ne rek seen mbégte mooy suñu bànneex ndax yéen ñi nga xamante ne yéen a doon wax ci promotion wu combat bi yéen ñi nga xamante ne yéen a doon laaj fu combat bi toll mbokk yi combat bi daanaka la ca des bareetul waaye jàmbaar production ñu ngi fas yéene signé li nga xamante ne mooy contrat yi warloo seen diggante ak ñi nga xamante ne ñoom la ñu sentir liggéeyal ci événement bi nag ñu xam ni événement bi lépp li wolof naa léppay ku ne xaw ma lu ne ku ne nga ca événement bi jàmbaar production tëjalul kenn buntam dañ ciy ñëw liggéey ci liggéey bu mucc ayib moo xam ngay presse en ligne moo xam nga nga ngay télévision moo xam képp koo xamante ni promotion làmb ji jàpp nga ni war nga cee mën a bokk ci ñu koy doxal jàmbaar production tëjaluñu kenn buntam xale gis nga moo tax PDG Mansour Ba ànd ak Papa Sow macha allah ñu ñëw pour fas yéene xaatim li nga xamante ne mooy contrat bi lépp nag loo xamante ne war na ci bis bi wala dayo bi bis bi yéen a ngi ko ciy séentu rek incha allah rabbi bu ñu ñoppee incha allah rabbi dinañ leen leeral lépp loo xamante ne xew na ci biir ñu leen jaajëfal bu baax a baax a baax kon ñu dugg ci biir xool gars yi fu ñu toll ci wàll xaatim. parce que maa ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay baa ji. ñu sant bu baax a baax. teewaay bi ko waral. te teewaay fii dina ñëw pour signer suñu partenariat ak euh, Futur Media moo waral suñu teewaay fii incha allah. Hmm. production saa yi ñu xewle gars yi dañuy commencé naan événement bi nanga événement mais lu événement bi di gën di ñëw ngeen génn ci ruq yi ngeen nekkoon commencé wanewaat seen bopp lan moo waral waaw mais boo xam nga gars yi moom Sénégal moom sénégale kenn mënu ko teree wax kenn mënu ko teree am gis-gisam waaye ñun boo affaire événement wu bu doon leneen la ñu am ci njaaxle wala jàq la mais comme que wàllu làmb la ñu xam ko xam ko bu baax a baax miin ko xam ko am ñu lu ñu yàkkamti combat gis nga box box Joshua box la semaine passée munoo def promotion six mois huit mois munul ne dangay ngay ñamal gars yi ñamal gars yi bu dugg ci combat bi comme lu des ay deux mois nga pousse mu dugg ci un mois bi da nga accélérer affaire bi ñëpp am ay goût mais bu leen boo bëggee jël huit mois def promotion après bu mbëri dañuy mujjee sàlli dootuñu am valeur ci kanamu fii nag ay jour wala fii ak ay heure promotion bi day commencé ñu invité sponsor yëpp ñu ngi leen di woo ndax am na ay plateau dina am plus de quarante te bokkul ak émission yi am biir si Futurs Médias yëpp moo xam presque écrite bi la moo xam rajo bi la moo xam télévision bi la moo xam tamit euh, wàllu euh, digital la lépp loo xamante ni daal moyen de communication la euh, vingt quatre heures sur vingt quatre gaa yi ci ànd ak jàmbaar jaay combat bi allah ci waaw Futur Média parce que gisoon nañ ne jàmbaar da doon liggéey 2STV tey dem na Futur Média dem na TFM lan lan moo waral loolu soit. waaw xam affaire moom télé yëpp moom ñëpp euh, baax na. da ngay rek tey nga liggéey kii bu subaa nga liggéey kii gannaaw suba nga kii TFM si boppam ñoo ñëw envers nous. Mm. propose ay propositions yu am solo te ñoom dañoo jug pour yëgtuwaat làmb mu commencé nag ci kilifa ga ci kaw mooy sunu euh, sunu papa sunu tonton Youssou Ndour moo ne dem leen ngeen woo waa jàmbaar ne ñu waxtaan ñu xool ni ñuy jàppalee combat royal ba yéegu bi ci kaw a kaw comme que moom euh, presque mooy ambassadeur Sénégal ci àdduna bi yëpp depuis presque trente ans ko bu amee vision mel noonu bu ñu woowee pour ñu liggéey duñ ci am sax xel ñaar dañu ñëw ànd moom liggéey si incha allah ñaan nag yàlla yaakaar gi ñu am fii yàlla sottil ko incha allah kon léegi ci kanam tuuti gars yi xaatim léegi léegi ñu xaatim affaire nag jiile liggéey bi commencé la la la guerre commence waaw ñu def lan euh, Palestine Israël wala ñu def euh, Russie ak euh, Ukraine ah non ñu def Russie Ukraine ñu def Russie Ukraine waaw ñaari mbëri war a def Russie Ukraine ñaari mbëri ñoo gën a yàkkamti joxe instant bii nag benn problème bu ndaw la ñu am mm. mooy affiliation wu écurie yi ak mbëri mm. ndax face to face dafa war a am dem ba léegi ñu ngi daw ci ginnaaw euh, ménager yi ak écurie pour ñu daw affilié wu gaaw ndax CNG xam nga euh, CNG bëggul informel ñoom dañuy bëgg lépp lu ñuy def rek ñu def ko ci euh, li gën a rafet ak nu mu gën a aaree moo tax ñu wax daal maa ngi naa si appel bu ma seetaane ménager yëpp dem affilié bi nu mu gën a gaawee mbëri tamit dem renouveler seen ay licence pour face to face mën a am sinon bon day am ay manquement yoo xamante ni pousse tay am te bëgguñu pousse affaire bi waaw loolu daal laay éviter. bi daal ci ci mbëri la. suite la des ci mbëri équipe la des pour ñu def face à bi. Hmm. am nañ place am nañ lépp léegi daal ñoom bu ñu paree rek ñu jëm si nga xam ne Sénégal moom man dama foogoon sax CNG ubbeegul mais bi ma woowee ñaambe ñaambe ne ma ubbi le 15. depuis le am na promoteur yi jot a jëw jënd ay licence nangam nangam ci lan daw wax mu gaay ne leen nag ndax CNG daf ñu joxoon benn accord comme quoi que vacances ñu mën nañ tëgg suñu ay combat bu leen woowee rek mais bi leen woowee deen wax loolu ñu ne ma ah, so waay papa mu ne ñaam bi ne papa mu ne ko waaw mu ne ma CNG ubbi na bu ngeen bëggee def face to face nag ñoo ngeen affilié ngeen jënd licence euh, kii nu mu tudd mbër yi renouvelé seen licence écrit affilié pour mën a am kon nag gars yi ñu ngi daw assurance mi ngi CNG actuellement nii pour daje fa gars yi vite fait ñu mën a liggéey nii liggéey affilié gars yi renouvelé seen ay licence ñu commencé liggéey. surtout am na licence suñu tool ah non wóoruma assurance moom moo nekk di jokkalante diggante euh, ménager yi ak euh, mbër yi mm-hmm. mais ménager moom wax na ñëpp ñu daw bu ménager affilié ba pare rek automatiquement mbër yi day mën a am licence mm-hmm. mais bu mu affilié nag duñ mën a am licence. Mm-hmm. Modou nag am na licence. <laughs> Ah, yaakaar nga ndax as dañ naa mi ngi fële di lekk ay gerte mi ngi Saalum aas <laughs> moom mi ngi Saalum dañ naa di lekk ay gerte yaakaaruma ne ah am mënugul nekk moom daf naa mbër yi ñaari mbër yëpp affilié gunu mais peut-être tey dinañ affilié. as bu ñëwee tey bu subaa moom mu dem affilié Max Burger peut-être moom comme ko jege na mën a def affilié li licence yi ñu defar ko million ko dem. macha allah jaajëf. ku am lu mag dangay ngay ndékki. lu mag da ngay ah. ngi ndékki de. dama xalaat ni affaire bi jarul coow. nañ bokk ndey. nañ bokk bàyyi. Mm-hmm. nañ leen xàccandoo. nañ leen mm-hmm. dóorandoo. Mm-hmm. li ñu am nii <coughs> daa benn. mbir moo xam dama la koy leeral mm-hmm. kilifa kër gi mm-hmm. dañuy wax ni yaatal leen mm-hmm. yaatal leen yaatal leen ñëpp kon ñu ngi woo ñëpp 2 seen Sen TV Walf Fadjri ñëpp ñu ñëw sallallahu taala alayhi wa bi ko yàlla joxe lépp ku ne dalaa bàyyi ak la nga am nañ leen yéenante jàmm nañ leen defante jàmm naam ñu ñëw décrocher le combat royal mais on ouvre ouverture ah oui ouverture concurrence bala muy neex deug deug deug du yow kese ay nekk ci terrain bi lan mo tax ñuy wax Messi mën football? lan mooy wax ah, ah, tax Sadio Mané mën football? parce que amna na ku toog ci banc bi ko xamante ni bu Sadio Mané blessé wala gisul buñ ko dugalee Sadio kenn dootu ko gisati kon li bëgg moy mooy sëmbaxaloo na ñëpp ñëw ñu xam ki ki et ki fait quoi. Loy

dëkk bi yëngu xam nga lu tax ñun yaatal nañ la nga ñëw yaatal nañ keneen ak keneen mu ñëw Lutte TV mu ñëw en collaboration dañuy yaatal yaatal keneen ak keneen mu ñëw mais ñun am nañ L'Obs am nañu Record am nañu RFM am nañu TFM am nañu IGFM te sénégale yi ñu ngi suñu ginnaaw donc kon lan la ñuy tiit lii tax affaire kenn du ko yëg mooy nga képp ko yow kese décentralisons. Mm-hmm. nañ wone ne ay professionnel lañu. Mm-hmm. waaye la waaj a waxoon rek ku wéet xam nga sa bopp. Mm-hmm. ah léppay xaw ma léppay ne léppay léppay ñëpp lu ne ku ne nga ca te dama la cay yokkalaat beneen affaire ah. pom du moroomu new. xëyum 404 bokkul ak ngontum avion ak jee rek tout est possible <laughs> maa la léegi nag Alaaji Cerno Ndiaye dañ doon denc le meilleur pour la fin Lamine déet kaay bu dee benn moo sax di ko sànni. dañ doon denc le meilleur pour la fin suñu ñu le meilleur pour la fin mooy jiili kaay bu production Et et et e ñu bokk teen ñooy laxasooy gooj ku ci ne ci na ci kàddu te rof yàqul nga wax c'est important parce que aussi parce que aussi tamit li koy Dieng moi kii moo yor télévision bu jambar production na leer te man amna ci yu bari yo xamni ne ko jëlee ci yow amna na ci yu bari yo xamna ko ci Lamine je vous donne l'information bala ñuy dem face à face modulo Lo ak samedi lay en direct ci télévision future media. lolou lañ doon denc Alaaji Thierno Ndiaye kon face à face modulo Lo ak samedi lay télévision future Media en direct et en clair kon na kon jàpp ni à partir de 20 heures jàpp sur télé parce que autorité yi liñu wax moy face à face dotul dépasser ti minuit kon jàpp ni à partir de 20 heures face à face bu journal bi jexé face à face Modulo, taxaw cité taxaw aladji Cerno taxaw malik taxaw Lamine Samba taxaw Jili taxaw Lamine Lutte taxaw buuba taxaw sénégalais yi taxaw Modou loo wax li mu indi suñu njaboot yëpp dinañu ñëw incha allah rabbi li ma li ma leer ba leer mooy du nekk événement bu yomb waaye jiili damay jox information bi fii en direct bu ñu defee face à face bi ba pare dimanche yow ak Lamine la invité jongante yow Lamine bu TV parce que ñoom invité nañ ma jeudi ci les spécialistes dinaa dem incha allah rabbi mais jàpp leen ni lépp lu ngeen am ci Euh, matière indi leen ko muy yow ak Lamine buuba ngeen ñëw ñu sot jongante ndax nee naa leen ku signé Futurs Médias am nga problème jili kàddu gaango jërëjëf papa Lamine maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu mbokk kilifa yi nga xamante ne bokk nañu toog ci jotaay bi yëpp ndax yaakaar naa ne say kilifa moom boo toogee ñoom bu ñu waxee rek amatoo benn kàddu boo xamante ne dañ koy yëkkati waaye dañuy féliciter l'ensemble jàmbaar production teg ko ci loxo yi le PDG Mansour Ba ak ki nga xamante ne mooy Papa Sow ndax yaakaar naa ne ñoom it bis bu jot bu ñu liggéeyee rek ñëpp xam ne xale yi ñëwati nañ te defati nañ li ñu war a def ci làmb ndax yaakaar naa ne Papa Lamine événement du weesu ñu jël ki nga xamante ne mooy soq boole ko ak franc yóbbu ko fële ci arène national keroog ñu baree baree bari dañu ne combat bi mënul feesal arène nationale ñoom ñu tëj arène nationale loolu nag message la boo xamante ni ñu ngi koy jëmale sénégalais ci combat royal bi dox ci diggante Siteu ak le roi des arènes Modou mu ànd ak Futurs Médias ndax ku ne xam na ni Futurs média liggéeyam ci làmb macha allah kenn werenteetu ko kenn naataabale ko ànd ceeg suñu papa Thierno Ndiaye ak ki nga xamante ne mooy suñu papa Lamine Samba ak suñu papa Malick Thiandoum ak l'ensemble Futurs média bi yëpp ñu leen di jaajëfal bu baax di wax ni gars yi jàmbaar production ñu ngi waaj liggéey bu am solo jëmale ko ci combat royal bi wolof nag daf na lu duufandoo ci nag bi xajandoowul ci cin bi mm. waaye li ci ëpp solo yëpp suñu papa Lamine Samba wax na ko ñu leen di jaajëfal bu baax a baax a baax di kontaan bu baax a baax ci cër jërëjëf bu fekkee ni dañu ne suñu naataangoo lañ fi toogal suñu ay nawle lañ fi toogal ñu wax ci kàddu Mansour Papa Sow ñun ñu wax ci kàddu ne dañuy yaatal Alaaji Cerno Njaay wax ma wax ñu génn ñu dem kon yaatal boobu du dëgg ci ñun.

kon yaakaar naan moom aussi am na défi boo xamante ni war na ko ci relever di wax aussi waaye jàmbaar production ñu gën ko yaatal certes ñii la signer contrat pour ñu liggéey ci événement bi le jour J mais ñu gën ko yaatal pour yeneen site internet yi yeneen télévision yëpp gis ci seen bopp lépp loo xamante ne daal mënal nañ ko waa waa waa site internet yi ñu defal leen ko lu ñu mënal télévision yi aussi ñu defal leen ko ñoom aussi ñu bañ a xaar tey Mansour di leen woo parce que ñoom matière la ñu wut te ku nag ba egsi ci Modou Lo wala Siteu war mën a dëppaat en tout cas ñu ngi ñaan yàlla le 24 novembre ñu fekk ko ci jàmm incha allahu rabbi ñaari mbër yi bëre stade bi fees del del del promoteur bi gis ci boppam que le maire gagne incha allah. jërëjëf euh, Mamadou Lamine Samba di am mbégte ak contentement di nuyu assistance bi yëpp di jaajëfal waa jàmbaar production hmm? di nuyu Papa Sow le grand champion di nuyu Mansour Ba ak ñi fi teew ñëpp. di wax ni askanu senegal ñoo ngi jëm ci événement boo xam ni que taarixu làmb daf koy nettali ndax ku ne Modou rek xam ni làmb ci moom la dëppee Siteu nekk xale boo xam ni que ni yaakaar naa ni bi mu ñëwee ci làmb ak léegi yàggul waaye def na fi lu fi ni ni na fi te kon def di am mbégte ak contentement rek di di leen delloo kàddu gi te di la wax ni fi mu jëf jot wax amatu fi place. jërë ngeen jëf. waaye yàlla nañu jik. yàlla na sàmm yàlla nañu jik bés jógal yàlla nañu jik. yàlla jik sa yàlla mi ngi noonu. signature contrat jàmbaar production groupe. Futur Média combat Modulo suite mu ngi noonu Dakar le 25 9 2024 si lañ ko xaatim diggante Mansour Ba président directeur général bu jàmbaar ak ki nga xam ne moom mooy Ibrahima Dieng di directeur commercial bu groupe Futur Média mu ngi noonu Ibrahima Faye Beuse ngi noonu. Mao Cissé ngi nonu Alaaji Cerno Njaay ngi nonu waye mbokk yi événement bi moy duñu bayyi ndax du ngeen ñu jox lu toll ni ñu tëdd di nelaw tay la tay la àllarba alxames ajjuma samedi face à face modulo accite amba en arrière gaay nak amna lu ñuy réclamer nenañu amna fi gis ci ginaaw ñom Papa Sow nenañ sponsor yi ñew rek waji ñew naan da wi yo yaay kon nak mbokk yi mi ngi nonu rendez-vous samedi face à face site ak nga xamanteni